may fàttali ni 1979 ba tey Sénégal dafa am ak Union européenne kon lii du lu bees duguleen bii ñuy wax nii nag juillet 2019 ñuy xaatim accord yooyu fay ci Bruxelles li ci xew ba mooy Union européenne koy soog valider ci parlement am parce que wax ci wàllu union il faut que parlement bi valide loolu moo ci lu bees fàttali naa sànq ni ñan ñoo fekkee liggéey boobu wane ni presque multisectoriel la parce que ñii teewaat pêche ñu ngi ci biir délégation bi suñu am ñi teewal ministère des affaires étrangères ñu ngi ci biir ah ñi teewal recherche bi ñu ngi woon ci biir maanaam directeur centre de recherche bi mu ngi woon ci biir ñi teewal itam Euh, lépp li wàll jëm ci saytu suñu géej ñu ngi woon ci biir mais ñi teewal itam principaux acteurs yi maanaam pêche industrielle ñu ngi woon teewee ci teewoon nañ ci waxtaan yooyu ak accord yooyu wax ni accord yooyu ci 10 000 tonnes bu ton muy espèce boo xam ne euh, quasiment suñu pêche artisanale du ko attaque réew mu ne nag benn organisme international moo la naan quota bi nga am droit jël ci at bi quota ñaar la soit da ngay mën a permettre keneen moom mu am lu mu ci jël parce que mënoo ko jël yow yow amoo capacité pêche lépp mooy suñu suñu situation ñun Sénégal kon am ñeneen ñoo xam ne balaa mu lay rëcc nga jox leen ci wala yow nga napp li quota ba nga yor yëpp organisation internationale boobu dafa def ni bu ma buñ ma buñ la joxee fukk boo nappee fukk ak ñaar ñaar yi da koy rembourser accord buy ñëwaat ñaari dañ koy wàññi sa quota pour jox ko beneen réew boo xam ne peut-être moom nappul la mu waroon napp loolu lépp ci gestion durabilité ressource boobu pour ko la kon accord boobu ci loolu la porté euh, wax ni euh, Union européenne tey boo xoolee fanweer ak benn navire lañu ñu yor yuy intervenir suñu réew te accord bu ngeen ko seetee may na leen lu ëpp loolu euh, ci fanweer ak benn boobu. ñaar ñaar ñaar fukk ak benn France la démas Espagne la fukki yi France république française la kon loolu mooy wundu accord boobu tey euh, ñu bëri di waxtaane sans pour autant peut-être maîtriser la ca nekk ma leen di ñaan ngeen xool accord yi parce que loo xam ne dafa nekk en ligne c'est des informations disponibles ngeen xool ko bu baax Euh, leneen amoon na problème suñu diggante ak Union européenne te parfois moom mooy indi jiixi jaaxa ma fàtte ko sànq mooy li ñuy wax la pêche des appâts vivants parce que canne canneries par exemple appât vivant la ñuy utiliser dañu amoon dañu faral nag ci ay at ci gannaaw euh, bu ñu génnee port rek entre Hann ak euh, foog naa ay baaw yooyu foofu la ñu ko doon nappe te ñun suñu code dafa précis. notamment dafa am benn décret d' boo xam ne moo définir fan la ñu mën a napp ak fu ñu napp mënul napp te zone boobu dafa doon zone boo xam ne dañ ko te donc ci weer yi passé amoon na ay bateau union européenne yoo xam dañ leen arraisonné woon tey loolu leen xaalis ci wàllu woowu loolu indi woon na ay jafe-jafe parce que euh, tey foog naa ne nangu nañ fii napp fi nga xam ne autorisé nañ ko te bàyyi fi nga xam ne euh, mënuñ fa napp à part kon euh, seen seen naataango dafa ne ndax loolu moo waral xale yi dem immigration parce que jën amatul ma fàttali léegi ni accords yi depuis 1979 am na Sénégal kon foog naa ni déjà lien dafay xaw a gaaw muy benn ñaare mooy accords yi avant da daan porté ci ay napp yoo xam ne suñu mool yi daf leen intéressé tey accords yi loolu dindi na ko maanaam mënatuñu napp jën yi nga xam ne ñu intéressé parce que temps bi fi mu ne euh, jafe na gaal artisanal dem foofu di ko lakk muy benn ak technicité napp bi muy ñaar itam utilisation bi daf dul bokkul tellement ci suñu euh, habitude alimentaire lu dul ñu soppi ko te loolu it état bi def na ci bëri parce que mu ngi encouragé fii am na ay yu nekk port de Dakar tey yoo xam ne dañuy soppi loolu maanaam dañuy transformation bi euh, di ko exporter fii ba États-Unis fii ba euh, Europe mais surtout États-Unis bi nga xam ne marché bu jafe la nga dugg fa. boo remplir yenn critères yu te tey Sénégal made in Sénégal mu fay dem ci wàllu euh, kon euh, loolu daal foog naa ni raccourci la moom mooy lien bi secteur bu ne mën nga ci am wàll loolu kenn mënu ko bañ parce que nag c'est un phénomène global mais mooy fàttali rek ni accord yi lu yàgg la euh, te tey dafa gën a sévère parce que dañu ko limité boo xoolee accord bi weesu 14000 tonnes de thon la woon léegi wàcce nañ 10 000 xëy na bu ëllëgee bu ressource bi laajee dañuy gën a wàcc wala dañ koy arrêté 2000 tonnes la woon de merlu tey mu ngi 1750 tonnes euh, lañ ci daan Europe daan fay quasiment yokk na de 2 millions alors que quantité yi wàcc na donc yooyu yëpp il faut que nit ñi saytu ko te lu loolu ñuy fay rek montant bi ñu wax cinquante 3050 750 euros 3 millions 750 mille 750 loolu rek da ngay xool itam obligation yi ci li ñu ci gàll maanaam 25 pour cent minimum seen personnel dafa war a nekk ay Sénégal tey plus de près de 2800 marins sénégalais ñu ngi liggéey ci gaal yooyu dafa am yu ñuy fay par exemple tey pour les observateurs parce que dañu obligé observateurs nekk ci gaal yooyu yooyu it il faut ñu participer seen fonctionnement et cetera donc pour bañ a guddal mbokk yi euh, loolu laa ci mën bu nee am na yeneen nekk pour momante xuus wax naa leen di daal euh, incha allah peut-être même liste boobu maa ngi xool euh, côté juridique parce que nag parfois boo xoolee protocole bi muy wax ni dem leen ci article 12 bi qui par de la confidentialité confidentialité des données personnelles yooyu yëpp il faut ñu xool ko bu baax balaa ngay jël rek jébbal benn information ci mbooloo bi pour après mu indil problème euh, euh, signature Sénégal